asalaamaaleykum waa Tiwaawan asalaamaaleykum waa adduna man la Gumba Anta Ndiaye géwalu Matar ba doomu Tiwaawan maa ngi nuyu kilifa diine yi waaye maa ngi nuyu kilifa aada yi di ju sant yàlla di julli ci sangam bu tedd ba di Seydina Muhammad dama ñëwoon na tey macha di fàttali nit ñi sama bis boobu ma daan def ak mu jot te daaw ci heure bi lan jotoon dogal ci kilifa réew mi son excellence ak ci ndigalu xalifa bi ñu jotoon ni lépp luy mumbaay wala lépp luy programme aj nañ ko ba jëmmi jamono ren nag ñu déglu suñuy kilifa déglu suñuy manto ci politique ku ci mel ni Matar Ba tey def na déclaration wax lu am solo ci sport pour ñu commencer waat ko ci discipline pour xool maanaam feebar bi mu bañ a lor kenn ndax fo dan koo def pour fo defuñu ko pour mu lore te déglu nañ diskuuram am macha allah képp kuy nit rek xalaat nga ni comprendre na acteur ak sport bi yëpp kenn ku ci nekk la nga jiite ci displine ci bi mbas mi amee ñëw nga waxtaan ak moom ñëw nga indi sa doole pour jàppale ko pour ñu xeex mbas mi yàlla nag defal nañ ci jàmm ba kenn ku ci nekk yaa ngi commencé waat ndànk-ndànk say activité président tamit de la république ñu koy sant ci macha allah déclaration bi mu xoolee xam ne jeunesse bi macha allah li tax kenn ku ci nekk say activité doxalatoo ko nang ko daan doxale couvre fo bi ak état d'urgence bi moo ko indi woon mais président koroog ku déglu discours am xam ni comprendre na macha allah message jeunesse bi macha allah jeunesse bi nag macha allah ñu ngi leen di ñaax ngeen xam ni ñoo moom Sénégal te ñun jeunesse bi ñooy yaakaari réew mi ñu bëgg kenn ku ci nekk ci li nga nekk waaw nga am ci taxawaay sunu boroom may la ci ndam ba nga xam ni bul yàq bul wax wax bu ñaaw bul saaga looy wax war nga ko mën a kaas pour sa jeunesse pour sa réew ndax réew mi kenn gënuñu koo bëgg ñun ñooy ndawu réew mi ñu ngi sant président de la république waaye ñu ngi sant Matar Ba sama bis boobu nag di la 1 avril dama koo jàpp fii ci Tiwaawan gu Seydi Hadji Malick ma koy def sant Seydina Mouhamad sat bu sàmb di ko woy ak ay tabala maa ngi ciy woo sénégalais yëpp rawatina sama manto ci politique muy Matar Ba maire de Fatick maa ngi ciy woo maire Tiwaawan Mamadou Diagne Sy Mbengue maa ngi ciy woo Abdou Ndéné Sall maa ngi ciy woo Seynabou Gueye Touré maa ngi ciy woo ku ñuy wax Yélamine Gumbala waaye maa ngi ciy woo koo xam ne yàllaa ma booleeg moom ma ciy ànd ak moom muy Abdoulaye Ndiaye Ngalgu acteur de développement président mouvement ànd defar maa ngi ciy woo Abdoulaye Dieye président Sigi jot na maa ngi ciy woo Ale Fatim maa ngi ciy woo Global Business ñi di ko wax Youssouba ak Zignon Sakho waaye maa ngi ciy woo ku ñuy wax waa Kuli gépp rawatina sunu président ASC ñu di ko wax Habib Diagne Ramon Kota tey nag ñëw naa seet si waa Orange at mu jot ñooy sama marketing ci bis boobu la 1 avril c'est na era ki nga xam ni mooy zil suñu xarit ku ñu wax honorable député Sira Ndiaye boole ma moom ma ñëw seet si ko mu yombalal ma lépp woo ku ñu wax ma mat Ndiaye ni ko népp na nga ci daan taxawee na nga ko yokk waaye bu ko wàññi maa ngi sant waa orange ndax waa orange ñun sénégalais dañ leen a war a delloo njukkal ndax man mosuma am numéro bu dul 77 wala 78 te macha allah orange ñun dañ leen di sant ndax roy du nduroog piir ndax yéen a wóor lu mënti xew seen réseau moo cay ndëmba wan numéro un ñoom laa àndaloon ci coupe d'Afrique bi ak waa sport Sénégal ñu di ko wax waa ministère ak waa fédération ñu gis liggéey bu am solo ba ngeen fa liggéey bis bi daal yéen laa ko jagleel bëgg naa ngeen ñëw indi équipe bi ñu ñëw gën a wane marketingu Orange Era jërëjëf Mamat Ndiaye jërëjëf di sant nag waa Tiwaawan gépp seen doom seen xarit Gumba Anta Ndiaye doomu Tiwaawan ma leen di tiitaroo sama bis baango maa ngi ciy woo Pape Malick Mbaye suma seex suma xarit maa ngi ciy woo Sam Sidi Mbaye Abdou Aziz Mbaye macha allah di ci woo daal képp daal kuy jullit di wuyoo asadu laa ilaaha illallaah asadu muhammad rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ñu ngi sant ñëpp waa Tiwaawan seen doom bis baangoog la 1 fële ca boulevard Kuli le 1 nag du yomb. ndax maa ngi ci woo sama mag Waly Ballago Seck Serigne Soxna Aydara maa ngi ci woo Mame Boye Diao l'homme di Kolda maa ngi ci woo Mamadou ngoom ñaan le jeune d'âge maa ngi ci woo Alaaji Souley Diouf maa ngi ci woo Dame Diop ministre mbokkum yaay Mara bu Ndindi maa ngi ci woo Khadim Diop maa ngi ci woo Massène Gueye maa ngi ci woo Zahara Gadio fis di président de la République maa ngi ci woo Kewé Diagne maa ngi ci woo Ibadou Matar maa ngi ciy woo Vo Cissé maa ngi ci woo Khalil Ndiaye président Macky sans frontière maa ngi ciy woo Amadou Sall maa ngi ciy woo ku nuy wax Mansour Ndaw doom ci As Ndaw di transitaire maa ngi ciy woo Badou Ndiaye suma mag suma xarit maa ngi ciy woo askanu Yaali Kumba Fall Ndiaye maa ngi ciy woo waa Kër maa Makumba gépp bis baa ngoog le 1 avril la fii ci Tiwaawan gu Seydi Xaaji Malick ak ay tabala ak Gumba Bool ak site internet bi ñi ko moom di sama xarit nga xam ne lu nu laal a gën lu nu baaxul ñoo lu nu laal a gën lu nu laalul macha allah ñuy samay rakk di samay xarit kon le 1 avril sama bis la bu ko kenn xëccoog man maa ko moom gumba bool doomu Tiwaawan Tiwaawan nag bu la euh, Sénégal nag nit bu la nee bëgg na la te te neewu la bëgg naa fa mu dëkk da lay nax ñun Tiwaawan mooy suñu Paris mooy suñu France ba le 1 avril incha allahu rabbi dinañ wàcce kaamil ndax damay màggal sama juddu dinañ wàcce kaamil sant ki nga xam ni moo tax gumba anta am muy sang bu tedd ba di Seydina Muhammad di sant kilifa yi fii tëdd yëpp ci Sénégal ak lu ko wër di ñaanal ñëpp bis ba ci suba gi dinañ wàcce kaamil woo ndongo daara yi ñu bokk ak bis bi woo njabootu sëriñ Babacar Sy Mansour yëpp xalifa bi woo sama sëriñ sëriñ Moustapha Sy mu sëriñ Babacar si Abdou bu nu wàccee kaamil ba kaamil bi jeex ngoon gi macha allah dinañ togg ay xéwal nit ñi añ ci bu nit ñi añee ba pare jàngi nag jàngi tàkkusaan lay doon gan yi dinañ leen dalal indi leen ci baas bi fu waay nit bàyyi ko rek boo ñëwee incha allah dinañ la dalal ñëw indi la ci tànt bi macha allah bis ba nag woo naa ci nabiyen yi nekk Tiwaawan yépp ndax gan gi seen gan la muy alaaji Saat bu Sàmb te mooy tagg Seydina Muhammad ak ay tabala Pape mbay suma seex la maak moom junni lanu ak 5000 Saam suma seex la ku nuy wax Sidi Mbaye suma seex la suma xarit la ñu ngi ciy woo mag ñëpp daal di ci woo kilifa yëpp bis ba jàngi tàkkusaan lay commencé ba guddi gi incha allahu rabbi ñu ngi woo autorité yëpp képp ku dëkk Tiwaawan te bëgg Tiwaawan ñu ngi ciy woo démb Diop si borom sabadoor bi macha allah ki nga xam ne macha allah temps yi gis nañ ko. mu woote fi projet bu am solo pour di bëgg dëkk bii di Tiwaawan ñëpp am ay garab yoo xam ne garab yoo xam ne day nduróog masàllaa koskaas muy verte nga xam ne loolu mooy sunu couleur ñun tarixa Seydina Cheikh bis ba daal maa ngi ciy woo Cheikh Mouhamad suma xarit maa ngi ciy woo maam Abdou maa ngi ciy woo Djilika maa ngi ciy woo Abdourahman maa ngi ciy woo képp kuy sama xarit rek te dëkk Tiwaawan maa ngi la ciy woo rawatina sama waa koñ muy kuli ngi jaan fa ma juddoo fa ma màgge maa ngi ciy woo samay xarit d'enfance Ousmane Kassé Mame Mor Ndiaye Papa Nene Andala Faye macha allah ñëpp rek ñëpp rek képp kuy sama xarit maa ngi la ciy woo maa ngi ciy woo Mbaye Héritage Góor a Gueye Kër Xaadim téléphone maa ngi ciy woo téyeeri seex téyeeru Matar Ba seex si suma xarit seex sekk di sa téyeeru Matar Ba di sunu ñawkat maa ngi ciy woo Fawzeyni Couture suma téer maa ngi ciy woo macha allah aas doomu aas ñu di ko wax njaga sama téer nekk ca Pambay ETSL nekk ca Dakar di ci woo Daabo Filitex ñu di ko wax macha allah Tidiane Daabo ak Moussa Daabo ñuy sama xarit nekk ca Marsa Asalem di jàppale artistes yëpp maa ngi ciy woo Njaga Ero suma xarit maa ngi ciy woo Fatou Diagne naa si séeri Pape Malick Diop bis ba sa bis la. bokk nga ci ñi ma ko tuddee maa ngi ci woo Tuuti Ndiaye madame Diop les ambassadeurs de la l'émergence ki nga xam ne moom moom Tibana Tour di def transit di def assurance di def jaay bee avion Tuuti Ndiaye mbokkum yaay Ndey Ndiaye Lamsal ki nga xam ne ba may jàppale booba wéetoon naa loolu tuuti kenn du la fàtte ministre d'État sa baay mbay Ndiaye sa baay bis baa ngoog sa bis la muy le 1 avril merci waa Tivaouane jërëjëf waa Sénégal seen doom a ngoog mbala 1 avril incha allah.